Kër Massar mu di ab ndaje mu mag moo xamante ne waa parti bii di Pastef ñoo ko sooke woon ngir delloo njukkal kenn ci seen i militant ma ñàkkoon bakkanam eh, ay at ci ginnaaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na ngeen ngi lay ziar mbaa yaa maa ngi sant yàlla baax di muñ ko moytu. waaw yow xanaa turandoo Jérôme Diouf bu nekkoon RTS nga bu njëkk. ah. am na Jérôme Diouf bu nekkoon RTS journaliste. <laughs> Ah, dañoo nduroo. non dama tur bi rek quoi moom dama. ah d'accord d'accord sa turandoo. <laughs> effectivement sama papa jooju maa ngi koy nuyu de passage. ah kon xam nga ko bu baax. <laughs> bon jot jotu ñoo xamante jotu ñoo xamante jotu ñoo xamante. dafa yàgg de. allo allo. waaw ma ne. waaw. ah ñu ngi may dama dafa mel na réseau bi dafa dawoon ñu may dégg bu baax kon. waaw maa ngi lay dégg bu baax. waaw man la Sow Londres man dama bokk seen partenaires yi nekk fii Angleterre. Mm-hmm. di suivre Pa Assane di si suivre Gossas Gossas moom ñoo bokk Gossas maag moom. ah d'accord. waaw di ziar Nabou ak Mami Samb. Mm-hmm. waaw di leen ziar di ziar Ahmed. di leen ziar bu baax. waaw man damay bëgg nag xam naa di passé mais parfois day jafe quoi mais man damaa bëgg a bokk moom maanaam ngeen fexe ma doon seen représentant fii loolu laa bëgg nga doxal ma ko yow laa ko dénk serem <laughs> amul <laughs> la message daañu la message ci kanam su neexee yàlla am rek ma <laughs> fii li xew Londres ak yéen quoi ko xam na la ñu jox sa bu ma amee sa numéro dinaa la message dinaa la woo ñu waxtaan quoi amul benn leen donc régie su paree ngeen envoyé ko sama numéro. Paate pa tey Paate moo nekk ci régie bi nag xam nga Paate. Paate ah. waaw Paate maa ngi koy dégg ak ak kii Assane sonal trop Assane sama waa ji. <laughs> sonal pas Assane. <laughs> waaw jamono jëm moo nekk ci régie bi mbay mbay noppal na ko mbay daa day day noppal ko daal. mbay mbay laa bu mbay laa Assane sonal mbay <laughs> mais Pathé moom am problème léegi nañ jàppante moom sama gaañ lay doon quoi mais na ma jox sa numéro rek yow ma jot. amul problème dina ko jot incha allah. ñun ñoo ñoo ngi fii Londres nekkale fi gis nga bi tele bi ubbeeg léegi man mosuma sax di suivre affaire yi mais man. Mhm. Euh, seen waxtaan ak Assane ak Bassas ak man Mami li ngeen di wax vraiment c'est important adduna bi yëpp daf leen di déglu quoi. Mhm. waaw Sénégal fi ne bu suñ xol xel dalee ak suñ xol sedd mooy que seen seen télé bii la parce que li ngeen di vraiment ñun gisuñu ko feneen quoi. moo tax ñu mhm. kontaan ci. waaw te Sénégal rek moo ñor li ngay wax nag ci waxtaanu démb bu bu Sonko bi mooy que man man man dama gis ne ah yaa may dégg. maa ngi dégg lu baax. waaw man dama gis ne eh, ñun ñun jeunes yi li ñu war a def mooy que fexe ba li Sonko xam nga Sonko def ne toutes les raisons yi nekk Sénégal fi ne ñun dañu war buy defati benn euh, kii bu mel ni maanaam raison yëpp daje kenn ku fay passé ñëpp génn. ñu mhm. defandoog nga xam ne Dakar a ngi def Diourbel a ngi def Touba a ngi def. Matam mhm. a ngi def Fuuta buñ ko defee dana am doole parce que Sénégal xam nañ ne Sonko moo ko moom ñëpp xam nañ ko léegi. Mhm. waaw léegi nag ñi ñuy xeexal ñoom liñ am mooy armée te armée li yow am nga fa frère man am naa frère man am naa boo xam ne général la. Mhm. waaw xam nga léegi kooku fi mu ne du du yabal pour ñu rey ma parce que kon day perdre frère am. <laughs> waaw kon xam nga ne léegi li war mooy que ñun ñu dajaloo wut jàmm di waxtaan ji ma préparé te kenn du sonal suñu leader. loolu moom bu ñu mhm. boo préparé ko mais nag ni ñu ko mhm. mënee mooy que fexe ba ñëpp rek kenn ku nekk fi nga nekk ñuy dajal nit mais bu ñu jàpp rek ne affaire bi Dakar rek la. Mhm. saa yi Sonko rek def benn sortie man sama xalaat mooy na raison yëpp kenn ku nekk ka fay njir ñu jiital ko mu def sortie ñëpp daje fa. nga xam ne dañu wane ñëpp lool moo ñuy dimbale may ñu doole. waaw parce que fi mu ne nii Macky Sall fu ne am na fa police fu ne am na fa gendarmerie. loolu moo ko may doole. waaw ah, léegi na kon ñu ni aussi li ñu may dool mooy fu nekk bu affaire waatee am man bu ma mënoon fexe ba jot ci waa parti loolu bu leen defati affaire bu muy fenn rek fexe ba bu bu sorti waatee am rek raison yëpp bokkoo kenn ku nekk ñu def benn podium daje fa waxtaan bu ko defee dañuy am doole affaire bi day jàll rapidement. Mhm. waaw te beneen affaire bi may wax dégg naa ñoo pour dem ci sëñ Mountakha sëñ Mountakha lim mooy que problème bi mooy que moom ñëpp la fi nekkal fi ne nii buñ fexe woon ba Sonko da dajale ay nit ñu bari ñu ne dañ koy ziar ji waxal ko si suñu soxla dañuy ubbil bunt bi waaw dañ koy def benn déclaration ne dañoo bëgg a ji waa kër Sonko sëñ Mountakha. Mhm. jour dimanche ñëppay daje dem fa dañ lay ubbil buntu bi nga wax sëñ Mountakha mu wax ak moom loolu simple la. Mhm. loolu simple na loolu lépp ay idée la yoo xam ne fi ne duñ xuloo duñ xeex duñ werante te liñ bëgg dinañ ko am daal man sama gis-gis loolu la. d'accord waaw jàmmi Sénégal la ñëpp wër ñun ci jàmm rek la ñuy dox bu mu sañoon Sénégal moo ëpp jàmm ci àdduna bi moom la ñëpp di wax. amiin amiin vraiment am na paa mhm. Sénégal jàmm rek moom fi ne ñun dëkk même fii ñu nekk ay Angleterre boo nee Sénégalais ñu ne nitu jàmm duñ xuloo duñ xeex duñ sàcc duñ dem ci drogue duñ def dara fi ne ay daayira ngay daje wala association ñu dimbale doomu aadama loolu la mhm. ñuy dox kon loolu ñuy dox fii ci Europe moom lañu ñu war a dox Sénégal mhm. man sama gis waaw d'accord waaw loolu daal la gisoon de waxtaan beeg mbooloo mi am na solo Macky Sall bu gisee li mu gis démb dana xam ne maanaam xuux dàqul gaynde waaw loolay suñu problème kontaan naa trop Jérôme. maa ngi leen di gërëm di jégalu nag ci jël temps bu yàgg bi ñoo ko bokk ñoo ko bokk. ñoo ko bokk waaw ma sama waa jël lom ko sax ko maa ngi moom ñoo bokk sax. ah non <laughs> yi mooy def revue de <laughs> waaw waxal ma ko lool moom ne ko moom moom jox na ma sax WhatsApp am mais ne ko bokk ko sax ne ko sa waa jàng ne Mamadou Sow. London amul benn problème ñu la ci jot. ok jërëjëf après léegi maa ngi xaar gars yi ñu yónnee. d' accord Pathé ñu mën a waxtaan man ak yow. waaw Pathé dina la dina la yónnee sama numéro incha allah soo ma contacter rek daan ñu gën a yaatal daal. merci beaucoup nga nuyu ñu bu baax a baax waa Londres di leen ñaanal yàlla bu baax itam ci nga xamante ne foofu ah, ngeen ah. nekk yàlla dolli leen jàppale bu baax a baax di leen remercier ci qualité bi ak euh, adhésion bi ngeen am ci programme la TV fàttali leen rek ne mbokk yi euh, mën ngeen woy di woote ci numéro yi nga xam ne ñoo affiché waaye aussi bu leen fàtte di di euh, partager li nga xamante ni moo di vidéo yi di ko aimé bu baax baax ndax fàttali leen ne jamono ji itam li nga xam ne dafa jëm ci wàllum YouTube bi dañuy daal di rek bloqué ay notification ndax bés bu nekk rek li ñuy dugal ci ay vidéo daanaka moo tax léegi daanaka ñaan bu baax a baax ngeen di ngeen di aimé vidéo bi ndax loolu moo tax ñeneen ñi nga xamante ne itam ñoom euh, daanaka jamono ji gisuñu ne li nga xamante moo di direct bi ñoom itam te amee xalaat ci mbir mi mën nañ ko daal di gis donc mën ngeen euh, bu baax a baax euh, daal di aimé li nga xamante ne moo di vidéo di leen ko fàtte di partager régie nag su nekkee am na koo xamante ne jamono ji moo ngi ci ligne bi bëgg dugg ñu jël ko d'accord allo. asalaamaaleykum. Idi. waaw. Idi tey sa baat bi xanaa daa dee. waaw tey de moom xam nga souvent bu ñu bu ñu bu ñu amee lu ñu metti wala ñu am loo xam ne ni vraiment daf ñuy tiiju day day feeñ si ñun quoi parce que ñun duñ hmm. lan moo la metti waaw donc euh, dañ leen di nuyu ba pare. waaw d'accord bismillah nuyu yëpp. paasan sama nijaay jooju. rek hmm. maa ngi koy masawu quoi parce que dara gënul metti nga am loo xam ne daf laa naqari. metti la mm-hmm. trop mais doo xam noo koy faje parce que amoo doole quoi mm-hmm. mais sa kàddu ku nekk kàddoom la am mm-hmm. donc euh, bu nit di wax di waxee tension wala muy waxee euh, naka su dul noonu donc na ko ñi comprendre que ni nit ki souvent day wax mais nekkul ne xelam mooy wax xolam mooy wax quoi te xol maanaam ku yàlla dimbali dëgg dëgg dëgg dëgg muy nit yàlla muy wàll yi kooku rek moom moo mën a maîtriser xelam wala xolam donc loolu nañ koy bàyyi quoi fii kenn yare di fii quoi Mhm. kenn ku si nekk responsable nga ko mhm. donc bu nit di wax nañ xam ni euh, nit kiy wax jaam kese moom mooy wax quoi ku matul mhm. parce que nit bu matoon yaakaar naa suñu moom aadama du génn aljanna quoi waaye euh, lépp suñu borom dañuy xamal ni moom rek moom mooy alkamal quoi mooy ci mat donc euh, ñu ngi koy maasaw di maasaw sénégalais yëpp ñi nga xamante ne nii parce que sénégalais moom moo bëggul injustice quoi te injustice ku ko bëggul ku si nekk yaa am nga droit bañ ko parce que day taal réew donc euh, dañ ni réew bu ci ñett yi amee képp ku mën a daw ci réew moomu ndaxte na ci daw la mu gàddaay réew bu mhm. am njiit bu jubul moomum réew ku ko mën a daw na ko daw réew moo xamante ne day am kilifa yoo xamante ne dañuy gis dëgg teg ci seen tànk ku ko mën a daw na ko ndax dañ ne dëgg bu réeree suñ penc ñu koy seet mhm. suba ba bët ngoon jot te feeñul kilifa moo ci dëgg ab tànkam yooyu dafa euh, daf ci am réew moo xamante ne justice bi tamit jubul réew moom ku ci mën a daw na ko daw donc mhm. ginnaaw bu ñu euh, suñu xalifa général Seydina Ousmane mu seet lañu nuyu waa 2A TV gi ñëpp donc li may wax rek ndax euh, li xew démb euh, leer na nañ te ñun yoon loolu lañu yàggoon di laaj ki nga xam ne mooy suñu kilifa muy Cheikh Ousmane ndax dañ ne ko ñette rek lañ seex ak yow muy ñette yoo xamante ne mën mënuñ la ko bañal muy nga laaj ñu jox la nga digal ñu ñu def nga jox ñu ndigal ñu jëfee nga woo ñu ñu ñëw ñett yooyu dañ seq ko moom. Mhm. laaj nañu ñu joxe képp koo xamante ne nii nekk nga ci àdduna gis nga ni am na loo xam ne musta am ci histoire politique politicien bu taxaw na damaa soxla xaalis ñu yëkki jox ko mais moins de vingt quatre heures ñu dajale ko ci euh, plus de trois cent trois cent e quelques millions loolu kenn mësu ko gis donc loolu mooy laaj ñu jox la. nga woote ñu ñëw mbooloo mi daje Kër Masaar démb te buñ ne lee dañ naan Kër Masaar ñu ne Kër Masaar fu mu nekk ñu ne ci banlieue bi foofu la benn leader politique woote ñëpp ñëw lii si mbooloo kenn xam ne kenn mësu koo gis te ku mhm. ñëw yaa paasal sa bopp amul kenn ku fa sol t-shirt wala nga yor pancarte xam ne dañ laa jële si région yi indi la ku ñëw yaa indi si bopp te dafa am loo xam te ne bëri na ñoo xam ne xamuñ ko si de entre caisse liñ fa liñ fa ci ay bis ak ay car leen pour ñu bañ a fekk kenn xamul nu mu te nit nag bu la wanee ni la askanu ñu ngi sama ginnaaw woote wo laaj naa xaalis ñu jox ma woote naa ñëpp a ñëw kooku tey jii nii boo ko bëggee teg injustice lu xew ci réew mi yow la te euh, nañu bàyyi xel ci ne dëgg dëgg rek la mbir mi du mbirum Sonko Adji Sarr de xam nga mbir mi mbirum lan la mhm. mbir mi mbirum Pastef la Ousmane Sonko ak APR Macky Sall la mhm. na ci ñëpp bàyyi xel doonatul mbirum mbirum Adji Sarr de ndax Sonko bu génne woon na ay Sarr nangam suba gi waa APR ñooy génn tontu ça veut dire que ñoom nee nañ mbir mi pour ñoom la. Mhm. dégg nañ li maam mbay Niang wax dégg li euh, ma ma ma ma ma Sali wax. Mhm. nañ fexe ba bu dara xewee rek ñoom buñ daw mukk te dinañ jël suñu ay responsabilité xam nga bi passé ñoom dañoo dawoon dem ci ay hôtel ak ñi génn réew mi. Mhm. fépp fu ñu mën a dem ci réew mi wax nañ ko waxati ko. Pastef bi nekk États-Unis Pastef bi ne France bi ne Italie bi ne Allemagne képp koo xamante ne ni nit daw na ko ñëw fa ngeen bàyyi ko ñoom ñooy patriote yi gën a niil ci patriote donc loolu moom nay leer Macky la fépp fu mu mën a atterrir muy États-Unis muy France muy fu mu ci mënti doon patriote yooyu bàyyi ko mu nekk foofu ci hôtelam ak njabootam patriote yooyu ñoom dinañ leen nommer patriote yi gën a niil te bés buñ dajee buñ buñ buñ gañee combat dinañ leen wax ni leen yéen yéenay a waa Idi euh, Idi Idi wuyu ma. Idi gàtt si gàtt waa Idi ngi lay woo de. waaw wala Oscar nga bëgg ma woowee la boog. wa nu la neex rek. woowee ma Idi woowee ma Oscar. <laughs> aywaay ma woowee ma wuyu la. Idi <laughs> naa gis naa commentaire yi waaye Idi xanaa Idi dama laa ñaan ñaan ñaan ba sonn Idi. ah Idi xam nga. Euh, euh, Zorom. waaw. Jérôme xam nga yow sama waay nga non en fait il faut mu internet aussi yow sama waay nga. waaw waaw waaw sama yàlla def moo tax it yéen man maa la ko mën a ñaan ay Idriss. di mhm. wàññil. am loo xamante dafa am loo xamante ne ni il fallait que yéen ngeen def constat boobu ngeen ngeen ngeen wax ko quoi. Mhm. xam nga lan. Mhm. Macky Sall bi mu génnee 2009 génnee APR gi eh, génn eh, PDS ñun jeunesse bi dañ ne woon Macky Sall mii dañ koo tooñ moo tax ñun topp ci ginnaaw ginnaawam du dëgg. Mm-hmm. dooleel ko ànd Macky Sall benn dooleel ko benn injustice la musa moom la musa euh, euh, euh, moom moo ko musa dal muy digg Ablaye Wade ne yow da am huit milliards foog nga leeral ko moom xam nga nu mu def daa daw dem ci sëriñ si di jooy pour nañ na na leen Ablaye Wade daf maa bëgg tëj. sëñ Baara bi mu woowee Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade dafa woote rek Abdoulaye Wade na ko bàyyi teg naa lépp ci suuf Macky Sall continué di naan non sëñ bi bàyyiwul xam naa li ma la wax dafa bëgg tëj sëñ bi ne ko sëñ bi ne ko président góor du gaaw a jooy demal nga lijjanti ci loolu du benn injustice da nga est-ce que da nga xam beneen injustice bu ñu bu ñu mus a teg Macky Sall la kenn musu koo kenn musu koo dégg yow léegi Ousmane Sonko injustice yi nga ko teg depuis 2014 ba léegi est-ce que mus est-ce que mën ngeen koo compter kenn mënu koo compter kenn. mu bañ di daw di di négocier di bañ di daw di négocier saa bu ñu waxee mu ne toog toog leen te tey politique du noonu stratégie la ñuy teg. Hmm. léegi nag moom dañu doo miir bi li ñu naan doo miir dañoo yegg doo miir gàtt gàtt la bu dee Macky Sall ay bakkan la bëgg danañ pare pour jox ko lépp lim bu mu laaj ay bakkan danañ ko jox lim boobu lool ndax waa APR ku leen gis am na ñoom ci deret la ñuy dundee parce que pouvoiru magique la ñu yor ñun dinañ leen jox suñu deret arrosé bu dee arrosé Sénégal gi ak deret nañ ko arrosé ak deret. ndax ñun suñu deret la ñuy défendre Ousmane Sonko benn jullit boo xamante ne nii dañ laa bëgg teg injustice teg la loo xamante ne ay kàcc la suñ borom da koo leeral lépp luñ laal lépp luñ laal indi ko teg suñ borom wan ne lii du dëgg moom ci waxam moom suñ borom ci waxam moom moo indi preuve mhm. di leeral ñoom ku ci ku ci wéet di wax wallaahi wal azim da nga naan lii ñun ñëpp xam nañ ay kàcc lañ ñun li nga xamante ne nii te affaire bi nag daa am fu mu jëm de te fu mu jëm il fallait ñëpp teel koo xam xam nga fu mu jëm mhm. problème yi bi mu amee euh, euh, nu mu tuddee sax bi ñu bi Samba Sall génne àddina ban gis lañ dañoo wër ay gis gis bi ñu indi pour teg ko ñedda ko mbann mu lañ indi muy maa am Diallo nga indiwaat tey jii nii bi affaire ne dañ ko yóbbu procès ñu ne gis bi koy àtte Ahmed Sy mhm. ñedda ko bannum encore ñu ne waat tey jii nii lañu lañ xëy di wax Abdoulaye Ba ñedda ko bannum léegi dañoo bëgg a wax ni ñedda ko bann ñu ñoom ñoo war a àtte beneen xeet boo xamante ne nii ci ay Casamance la ñoo ay Joola deuxième ñoom ñoo ngi ñëw côté boobu beneen bi ñuy ñëw bu ñu ngi ñëw entre APR ak waa Pastef ndax démb damaa dégg benn débat ci guddi boo xamante ne nii benn panel groupe bu mag la boo xamante ne am na militant yëpp gis naa koo xamante ne moom dañuy euh, euh, waaw projet moom dañ fay dem même bu fekkente ne da ngeen di empêche fu ñu dem ñun dinañ wàcce wa wàcce defante ko ak yéen ka koy tontu nekk militant Pastef dañu ko loolu bu amee yow xam nga man xam naa la ñoo bokk benn kon bi bu faat di amee ci yow laay njëkk. loolu gis nga fa mu jëm gis nga fa mu jëm. d'accord kon nag kuy wax na nga teel a wax ñun jàmm la ñuy woote te moom moo ñu gënal bu ñu ko mënee am ndax ñun dañuy am plaisir toog nekk ci biti ñu ne senegal moom mooy réew mu nga xam te ne musta am guerre civile musta am coup d'état musta am dara. Hmm. démocratie dafay marché loolu noonu ñu bëgg a mu dem bu fekkente ni nag ñaar moom moo koy indi nañ woote jàmm ñu apaiser. ñëpp soo nee nañ bu fekkente ne dañoo woote jàmm yéen na leen na leen ca jiitu ñun ku ñu woote jàmm ñu jiitu la ci. Mm-hmm. ku ñu woo ci ñu jiitu la ci bu bëggee sax ñu dem ba pale eh, raam toog ci kanam Macky Sall la naka comme jàmm nga woote ñun ñoo ngi nii jàmm rek lañ bëgg waaye nag ku ñu bëgg jàpp tëj ñu comme ginaar ginaar gu timis jot ñu bëgg laa fat fatee dugal la ca ngunu ñu jaxaw jaale suñu bakken wasalaam ñu ngi leen sant merci <laughs> di ko jaajëfal waaye tamit ñu fàttali ne li li ñu doon wax sànq euh, amalgame am na ci di gars yi di wax ne ne ko maanaam l'homme l'homme est le remède de l'homme am na ñoo xam ne dañ naan euh, ci mbir yi daal tànneef bi daanaka ci mbir yi euh, xaritoo ak waasoo la ñuy daal di juddoo donc kàddu idi dama la koy ñaan à chaque fois rek nga bañ koo daal di gën a fësal ci sa discours sama xarit nga yow laa ko yow laa ko sañ wax donc ñu waxtaan wi